dal leen nag jàmm ci xibaar yi lu ciy gën a fës bokk na ci lu tukkee tey ci mbas mi fukk ak juróomi doomi aadama ñoo dolleeku ci lim gu ko fi jot fukk juróom-ñaar sonn nañu ba ñu nga sauvetage am na ñeenti doomi aadama yi nga xamante ne nii daal dinañu siy ñàkkaat seen bakkan xibaar bu nakkar yi daal dinay tàbbi ci capitaine Touré mu waroon tëdd fanweeri fan ci yi bu mbaaw moom nag penam boobee daal dinañu koy fullandi rax si dolli moom moomee soo moytuwul dinañ ko teg rek daan bu gën a diis ba nga xamante xamante ne nii moo weesu uh, fan ya muy tëdd foofee ca LGI bu mbaaw uh, mbirum médicament ya ñu saisiroon Patte d'Oie daal dinay am beneen tournure uh, collectif avocat ya nga xamante ne ni ñoom lañ jël ngir ñu défendre leen daal dinañu si indi ay kàddu di seetal rek deru ñu ñee ñu jàpp ne rek dañu doon trafiqué ay fo médicament oustaz Oumar Sall daal dinay dal sévèrement Ahmed Khalifa Niass moom nag daal dinay am li nga xamante ne ni daal dina koy xamle seen diggante di gulleet moom oustaz Oumar Sall laata sax muy xamle la nga xamante ne ni moom la ko aawoom defal ca ba mu koy euh, jël soxna gannaaw ba mu defee ay euh, kéemtaanam jël casserole def si ndox teg ca gaz gi koy soppi meew ak di si génne téere euh, ñu daal di biral vidéo bi ci réseaux sociaux yi boobu ba tey oustaz yu bari daal ñuy défier borom këru sumbulu bi di sulli ay mbootam wane ne loolu muy def du dara ci noonu yi nag Ablaye Diop xaas daa taxaw rek di dànkaafu site internet yi si bu défier néewub artiste comédien saint-louisien bi di Ibrahim Sidi la fekk ci buntu këram moom nag euh, dañu ko daal di agressé euh, jamati ko ay paaka jamate yu bëri lool si la ñàkk bakkanam lu ñuy naan ndog du wees xibaar bu nakari dal na ci kii di Djiby Sèye artiste comédien boobee nga xamante ne jamono ji euh, mi ngi ci digg tournage ngir sketch yi ñuy teg ci weeru koor wi dafa tël rek benn xale bi nga xamante ni nii ñetti at képp la am ca wetu armée Yoff ba xale dans le comment. Euh, Pape Amadou Sarr di délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes euh, daal dinay xamle rek lu doy waar ci wàllum financement jëmale euh, ci Y'en a ak PDS. gannaaw ba Thione Ballago Seck génne àdduna ba léegi doomam jile di Wally Ballago Seck daa dinay def apparition wam bu njëkk ci mbedd ndakaaru yi danañ leen gën a yaatalal bii le xibaar caamaado di dinañu fa doxantu ñu jiite maison de production boobee war nañoo jàkk jamono jile gannaaw sorti ba Marème Dial def nag ba tey réaction yaa nga mel ni taw kii di Marichou di première dame pod daa na si réagir James tamit di acteur ci série bi di Golden daa dinay tontu pod gannaaw moom it tontu ba mu tontu Marème Dial euh, si rek euh, poste ba nga xamante ne nii daa dina koy def euh, ki nga xamante ne nii tamit moo di si Camara di footballeur daa dinay soutenir Halima Gadji ñu naan ko Marème Dial di si maîtresse d'un homme ci li nga xamante ne nii fësal na ko di rek kaas peyooru ba acteurs yi wa ila actrice yi ci yenn série sénégalaise yi loolee yëpp bu yembee nag xibaaru tàggat yaram lañu si toftal doore koog football laata ñu koy tëjee ak làmbali li moo ciy gën a fës ngeen taaxirlu gannaaw bàkk bi ñu daal di koy gën a yaatal mu nga ko ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay yéen ñu safoo Dakar Buzz ngir taataan seen i ay xibaar bés bu yàlla sàkk mbas mi la ñu koy dooree comme ni ñu ko tàmm di defee si suñu réew mi la di Sénégal tey juróom-ñeenti téeméer ak fukk benn doomi aadama la ñu testé fukk ak ñoo ca génn amee coronavirus bi juróom-ñaar dañu leen wàll juróom-ñett ñooy ay cas communautaire bu weesoo loolu fukk ak juróom-ñaar doomu aadama sonn nañu ba ñu nga sowetage am na ñeenti doomi aadama yu ñàkk seen bakkan ci mbas mi nga xam ne ba mu ñu ganisee ba jamono ji may wax ak yéen fanweeri junne doomi aadama ak juróom-ñeent ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-benn ko fi jotaamee si ñoom fanweeri junne doomi ak juróom-ñett ak doomi aadama ak juróom-ñeent fukk ak juróom ñoo si ñakk seen bakkan fi mu ne ni lee lu toll ko téeméer ak ñeent fukki doomi adama ñoo fi amee coronavirus bi si suñu réew mi lee di Sénégal ñu leen si traité capitaine Oumar Touré mu waroon a tëdd fanweeri fan. CLG yi bu mbaaw daal dinañu koy yokkal fan ya mu war tëdd def ko léegi eh, juróom benn fukki fan mbir yi nag tàmbali na tar ci moom moomee di capitaine Touré eh, maître Sidiki Kaba nag ministre des forces armées moo fulandi penn fanweeri fan ba eh, def ko juróom benn fukki fan ñu tëj ko nag ci kaso gi depuis fukki fan ak ñaar ci weeru mars enquêteur bi ci mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko dana tëddaat lu mot ñaar fukki fan benn conseil d'enquête nag dina ko auditionné ba noppi statué ko waaye décision bu mujj bi nag ci njiitu réew mi Macky Sall rek lay bàyyeekoo bu ñu sukkandikoo euh, si xibaar yi soo moytuwulee dinañu ko ràjjee moom capitaine Touré euh, ci fàttali enquêteur bi ci dossier buy wutale Adji ak Ousmane Sonko dañ ko tuumal ni euh, dafa soppi procès verbaux yi ci faveur njiital Pastef bi di Ousmane Sonko. maître El Hadj Diouf daal di nay euh, ba noppi félicité Babacar Diagne mu jiite CNRA ngir lu mu traité ak xarañte euh, plainte ba mu déposé woon ngir mbirum clientam bi di Adji Sarr ngir ñu retiré série bu ñu tuddee euh, ci Adji Sarr te mujj soppiwaat tur wa def ko balin Kumba maître nag nee na moom moomee ci boppam moo dénoncé woon diffusion ngu série boobee bëggoon a présenté clientam bi comme ab vulgaire waaye itam ab soxna buy jaay boppam. itam di arnaquer ak chantage nit ñi di image boo xamante ne ni dëppoowul ak lu am bu ñu sukkandikoo nag ci avocat bi Adji Sarr yàq nañu image am ci réseaux sociaux yi ngir dénigrer ko waaye nag lajj na te lu ñu bëggoon mooy fexe ba seetal kii di Ousmane Sonko ba loolu weesoo Maître El Hadji Diouf ne yàlla mooy attekat bu gën a xareñ nag muy ndam bu Adji Sarr njëkk am bu ñuy savourer si waxtu bu ñuy xarendi victoire finale bu mag bi mu xamle ko moom muy défendre aji Rabi Sarr mbirum médicament ya ñu saisiroon Patte d'Oie daa dinay am beneen tournure euh, collectif avocat yu mise en cause yuy euh, dénoncé ab lynchage médiatique en totale violation des principes de la présomption euh, d'innocence et des droits de la défense fees dell ak mer def ñoom nag daa dinañuy annoncé ay poursuite ngir diffamation ak dénonciation calomnieuse maître Bamba Cissé Amadou Ali Kane ak seeni ay ñooñ dinañuy xamle ni dañoo yàq seen image yu client euh, violé seen ak yéleef ndaxte ay citoyen lañu yu honnête sax ak ay étranger ya nga xamante ne ni dañu décider investir ci suñu réew mi di Sénégal rax ci dolli euh, seen société boobee am na droit importer matériel médical ci contrôle autorité sénégalaise yi waaye itam comme nu ko loi réew mi tëralee euh, ci noonu ñu ne nag administration des douanes sax biral na ab communiqué de presse xamle ci anam bu leer leer nañ ne rek amul benn infraction douanière bu ñu mën a reprocher société bi di Daxiko Sarl nga xam ne nii xam nañu ko bu baax a baax ci ay services am direction de la pharmacie et du médicament jox ko bépp autorisation bu mu war a am ba ñu xamle loole ba noppi nag maître Bamba Cissé ak ay ñoñam ne nañu nag am nañu droit topp bépp doomu aadama bu laale ci diffamation bi way la dénonciation calomnieuse Omar Sall daal di ne dal mu xamle oustaz nag nee na toog wax ne mèche ak li ni mel daggan na te muuraay d' obligation euh, fu ne la ko woowee ba ñu yëkkatee yi baat euh, ne ko rek oustaz bëgg nañu nga wax si ndaxte waa ji waxati na musiba mu ne leen rek euh, xam ngeen kon ne waxtu waxkatu musiba la ba loolu weesoo oustaz ne boo seetloo sax waa joojee ci koor gi rek la koy gis muy génn te nu mu xamee rëdd baaraamam yi la ko xamee boobee ndaxte dan na ko njabaral moom ci boppam euh, këram fu mu nekk mu ko doon duggal xalwa euh, ba tax daal xam bu bu jéggi dayoo la ko dal di xam ci noonee oustaz ne euh, bi muy takk aawam moo ko jox un million sept cent mille fekkoon mu nekk di koy liggéeyal te moom rek la gëmoon ba jour ba mu ñëwee sax naan ko bàyyi na xalwa daf koo ne rek léegi nga alku mu ne ko yaa may gën alku ba loolu weesu oustaz Omar dellu di xam le Euh, xam na ko bu baax a baax euh, nitu caaxaan la euh, am na xaalis gaa waaye nag même famille yam sa jubboowul ak ñoom ndaxte moom moomee dafa nekk nit ka nga xamante ne nii comme xale lu mu bëgg rek laxam te yàlla daa rëbb na jigéen buy jokk ak ki koy jokkal ba tax na jokk daal daañu ko xaraamal te ba mu ne xadis bi wérul moom oustaz Oumar Sall da doon xar rek mu jàngal leen tegtal yuy wéralul boobulee xadis waaye daane rek xadis bu wérul ndax yonent bi ku mu rëbb eh, nga dee te loolee du xam-xam rax si dolli indi ay perruque ak yu demee noonee eh, dafa bëgg rek tas société bi ba tax na daal wax joojee bu ñu ci sax per de temps ndaxte benn saay-saay buy wax waxu xaleem la eh, te rek comédien ak animateur yuy toog ak moom képp rek la mën a détourner gannaaw ba mu defee kéemtaanam jël casserole def ci ndox teg ko ca gaz ba mu tàng soppi ko meew ak génn génnee ci ab téere ah, ci kanamu ay invité euh, ñu daal di biral vidéo bi ci réseaux sociaux yi mu wër internet bi oustaz yu bëri daal di nañuy génn su mbootam daal di koy démasqué moom Abdoulaye Diop xas ah, bu ñu sukkandikoo nag ci yenn xabaar yi borom këru sumbulu bàcc li bi day tëkku rek site yi biral ah, vidéo yooyee ñu koy démasqué ak ay experts yu weddi vidéo wam yu fees dell ci net bi moom nag Abdoulaye Diop Khass taxaw seetlu bu ci amal moo di ba ñu biralee vidéo wam boobee nga xamante ne ni si la nee na ba ñëpp jot sa kenn dégg ko waaye eh, ba ñu génnee daal di koy défier la ñu ne nag mu ngay tëkku site yi ngir rek ñu baña dugal yooyu les vidéos eh, fi mu ne nii nag eh, dañuy xool ba xam ndax ab Ablaye Diop Khass dina jëfee menace yooyu muy def am déet. néew ba artiste comédien Saint-Louisien bi di Ibrahim Sidi la ñu fekk ci buntu këram altine ci guddi moom nag dañu ko agressé jam ko ay jam-jamu paaka yu bëri lool fekk mu doon ñibbi këram si noonee sax la si mujjee ñàkk bakkanam Ibrahim di mi nga xamante ne ni ay jegeñaaleem mbidda la ñu koy woowee ku bëggoon art ak culture la mu engagé wu lool Ibrahim da doon dénoncé guddi googee euh, sabotage peinture bu ñu def ci mur stade maître Babacar Seye bi. Euh, gannaaw frasku ndaw yu nekk ca ville ba doon dénoncé ab projet euh, de mutation de l'infrastructure sportive la ay inconnus euh, tuure huile bu ñuul kukk rek ca mur police nag daal dinay ubbi enquête xibaar bu yi daal dinay dal ci kii di Djiby Sèye artiste comédien bi nag dafa tël ci anam bu doy waar benn xale bu jigéen bu ay atam toll si ñett ci wetu armeeru Yoff bu sukkandikoo ci xibaar yu ñu si am xale bu nekkoon ci biir oto waajuram bu jigéen Euh, si inattention yaay ja dal di wàcc oto ba euh, si noonu la ko scooteru jibi sa bi tëlee ci anam bu doy waar daal di koy sànni ci suuf euh, xale bi nag gaañu gaañu yi métti la si jëlee mi ngi sax jamono ji réanimation ca kër docteur ba tey ngeen di taataan yi ci Dakar ñu falaat ko bu yàggul dara mu jiite Tchad gannaaw ba mu diriger réewam depuis fanweeri at njiitu réewu tchadien yi Idriss Déby Itno daal dinay génn àdduna gannaaw gaañu gaañu yamu jëlee woon ci ba muy commencé commandé arméem bi euh, si ay xeex ak euh, rébellion euh, ci bëj gànnaar ba ci week bi nakar bu rëy nag la peuple tchadien bi yëggee xibaar wi tey si talaata ji yemook ñaar fukki fan ci weeru avril ay ministre ak ay officier de haut xamle woon nañu altine ni njiitu seen réew mi daal demoon samedi ak dibeer ci front bu doon wutale arméem ak ay rebelle yi nga xamante ne ni ñoom ñoo lancé woon benn offensive dalee ci base arrière bi ca diwaanu Libye bésu scrutin ba yema woon ak fukki fan ak benn ci weeru avril Idrissa Déby ay atam toll si juróom benn fukk ak juróom-ñett di militaire de carrière mi ngi gagné woon pouvoir bi ca atub 1990 ci ab coup d'état moom nag dañu koy doog a falaat ngir mandaaw juróom benni at ak 79 virgule 32 pour cent de suffrages exprimés bu ñu sukkandikoo si résultat provisoire yu ñu xamle altine ci ngoon Euh, fi mu ne nii nag euh, ba conseil militaire ba nga xamante ne ni doomam moo ko jiite euh, mooy remplacer président Déby mu génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm ma junj leen ko ci bopp xibaar yi DER moo finance Y'en a marre ak PDS li ni mel nag du samay kàddu Papa Amadou Sarr di délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes moo ko xamle moom nag nee na depuis ba mu demee gisee ak njiitu réew mi ci ay critères financement de la DER Papa Amadou amul critère financé leen ndaw yu am ay euh, projet yu fiable si noonee mu ne loolee moo waral nag ñu financé ay ndaw yu am ay projet yu fiable bokk si waa Y'en a marre ak Pastef Guy Marius Sagna daal dina yoo jaajëfal fukki ndaw ak benn di benn équipe de football bien particulier buy cotiser ngir fayal ko néegam fukki junne guy nag nee na day profité ci anniversaire kenn ki di Yankoba ngir delloo njukkal fukki ndaw ndaw ak benn yooyee nga xam ne depuis lu mot at dañoo jël décision fayal ko benn parti luwaasam euh, 68 virgule 75 pour cent maanaam téeméer boo jël juróom benn fukk ak juróom-ñett yu toftal juróom-ñaar fukk ak juróom Guy Marius Sagna nee na ci benn néeg la nekkoon di fay 40 000 weer bu ne fukki ndaw ak benn yooyee ne dañoo bëgg di koy fayal location mu bañ ba sonn gi na ba ñu ko laajee ñaata la mu ne leen 50 000 ndax ba mu leen koy wax yaakaaroon na ni duñu mës sa gis loi su fukki junne maanaam da koo defoon exprès gi nag daal dinay xamle tamit ne ñu bëgg a xam kuy financé Guy Marius Sagna fu muy jëlee li nga xamante ne ni moom lay dundee yan force occulte ñoo nekk ca gannaawam dañu xam ne fukki ndaw ak benn yooyee la ba mu ca noppee la ne monsieur le ministre de l'intérieur fukki terroriste ak benn yooyee ñoo boot ci structure bu ñu dippee les amis de Guy ñoo nekk rek ñoom ñoo ñee ci gannaawam dal di fësal seen tur moom Guy Marius Sagna aywa àddu jëmale ci leneen célébrité et religion juróom na xiiro ngaayoo ci weeru koor daaw bi bu njëkk nag yaa Awa Dieye moo doon présenté boobule émission ca 2STV télévision Futur Média daal di koy recruter présentatrice bi dafa bëggoon a yóbbaale boobule émission di ko fay présenté di li nga xamante ne ni El Hadj Ndiaye da ko bañ ba tëdd ca naaj wa 2S nag mujjee naa récupéré boobule émission Astou Sall ex moo ko fay présenté numéro bu njëkkam ci boobule émission euh, présentatrice bi Ousmane Noël Dieng sax la si dalal ba coon Balago Seck génne àdduna ba tey jile doomam ji di Wally Balago Seck daal nay def apparition am bu njëkk ci mbeddu Ndakaaru yi euh, falamarem bi nag da doon promener souriant di rassurer ñi nga xamante ne nii ñoo di ay fansam ma addu ci mbirum euh, Halima Gadji ñu gën koo xam ci turu Marème Dial ci série bi di maîtresse d'un homme marié ba mu fësal di dénoncer peyooru acteurs yeeg actrices yi lima àdduna lu dul benn yoon du ñaari yoon ci condition yu artistes sénégalais yi africains yi di jànkuwanteel dal di sukkandiku ci ay exemple yu bëri lool bokk ci Habib Diop ak euh, Mbaye Rafia wala sax Demba Ba ba Marème Diall fësalee bataaxal boobee muy xamle ni feyuñu leen euh, nu mu waree euh, pod da ko tontu rek moom it si ay baat yu gàtt ya mu fësal ne soo fàttee la la lu lay folli day yomb beneen acteur Marodi nag daal dinay tontu pod ci kaddu yu gàtt yooyee mu yëkkati Souleymane Seye Ndiaye ñu gën koo xam si turu James ci série bii di Golden dafa wane moom it meram ci Instagram la fësalaat post xalima di rek je vis de mon ba mu ca noppee la tontu pod ne ko rek yàlla mooy fale di folle ñu jiitee maison de production boobee di Marodi war nañoo am jamono ji ay souci waaye yàlla war nañoo jàkk depuis sortie bu Marème Dial def yenn acteur Marodi daal di nañuy réagir gannaaw bi li ak Jams première dame pod di Marichou moo leen dal di feelu dal di wane moom it boppam ci compte Instagram ngir fësal solidarité am jëmale ci ay euh, collègue am di acteurs yi Marichou nag post bu Jams def la dal di partagé ci Instagram am ngir soutenir Marème Diallo mu mel ni rek révolte yaa ngay fële fu ne ca Marodi. ba tey rek ci sortie bu Marème Diallo def ci cachet acteur wu yenn série sénégalaise yi Myriam Ndior tamit wone na ci meram mu nekk actrice ci série yi di Idole Virginie ak Belle-Mère Myriam na série yi dundalul acteurs yi ñu si génn mooy ñu nekk soit fonctionnaire soit ñu supporté wul benn charge familiale ba loolu weesoo Myriam Junior daa yokku ci ay kàddoom ni bëgg nañu lool seen liggéey eh, ci plateau da ngay dund beneen personnalité soo ko réussir dangay am mbégte mu rëy eh, ba tax sax ñuy nangu bu ñu leen di naan eh, jàpp ci rek kom solution nag actrice bi dafa proposer télévision locale yi ngir ñuy jënd production locale yi ba mu ca noppee la ne yaakaar na ni ndaw yuy ñëw mën nañoo tombeek ñu leen di fay ay millions ndaxte yenn producteurs yi tamit bañ ñoo fay dañoo amul de moyen keneen Ibrahima ñu naan ko Marème Dial ci maîtresse d'un homme marié bi la yoon nag du acteur comme moom waaye ab footballeur di Diomasy Camara ancien international sénégalais bi nag daal dinay regretter absence actrice bu ñu gën a ràññee ci boobule série di maîtresse d'un homme marié Diomasy nag nee na maîtresse d'un homme marié sans Halima Gadji mi ngi mel ni rek Barça sans Messi wala rek Paris Saint-Germain sans Neymar wala Mbappé ba tax na daal guu wa ila cafin yi yi du doon benn euh, ba mu ca noppee mu ne nag force et courage artiste yi nga xamante ne nii euh, dañuy ñafe bés bu yàlla sàkk dem sax bay jël ay décision yu rëy euh, ngir yee nit ñi noonu laay xuusee ci xibaaru tàggat yaram ak football bu ma koy dooree Sadio Mané daal dina retrouver chemin wu filet yi gannaaw juróom-ñaari match sans marqué ñu fekk ko ci diggante ligne ñi Diogo Jota daal dinay délivrer excellent ballon vers entrée surface bi yi ak Trent Alexander Arnold euh, moom moomee sax ma mujjee tudd moo devancé sortie wu Ilan Meslier ak remise dans l'axe ngir Sadio Mané euh, sénégalais bi ci fond wu filet rek la déposé ballon ba làmb laa koy tëjee ak euh, Balla Gaye 2 moom moomee nag du yaakaar ci lamb képp ngir faji ay soxlaam ajjuma bële ñu génn si signature contrat wam bi ak Boy Niang te Gaston organisé ko ancien promoteur bi di Aziz Ndiaye xam leen ay projet de reconversion Balla Gaye 2 Aziz nag nee na gannaaw lamb ji ancien roi des arènes bi daa soobu euh, ci wàllum agriculture ak euh, immobilier euh, bu weesoo loolee Balla Gaye 2 daa dina fay xamle ni sax ragalul jël ñeent wala juróomi avance ndaxte at yi ak bés yi xaarul kenn